mbokki Sénégal lamb dafay dekkiwaat le 4 février ci arène national Gaston production ne damay indiwaat claf ci la ndaanaan yu mag yi jaaree woon yéen a ngi koy fàttaliku mbokki ren jii nag Gaston production jël xale yi gën a ràññeeku ci seen génération du xam ngeen caatu yoof ndaanaan bi moom la jël daal di koy boole ak njaaytin gàmmu ngay dina fa jàkkaarloo ak caatu yaraax mbokki Doudou Sané jàkkaarloo fa ak njaga doole booy jaxaaw dina fa jàkkaarloo ak garga waaye mbokki Gaston production ne du yem foofu bés boobu faaw ñu bootal ko grand combat bu am maan ndaanaan Zarko doomu Grand Yoff xale bi ñëw perturbé lamb ji yëpp doon ndaanaan kullu fadilin la Gaston production jël daal di koy boole ak l'espoir de Guédiawaye ñaa bu ndaw xale bi nga xamante ne jàmbaar la ndaanaan la champion loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mën ko am en live pay per view ci seen affiche point com 8 virgule 99 euros dong nga mën a seetaan lamb ji en exclusivité ak ay image yu amatul fenn ciy Gaston production bu fekkee mukk fu lamb di jooyee di leen fàttali rek tey février 2024 production moo weete fii fi Jaxaw Sine mise 3 bof ak 100000 francs mu ngi noonu diggante Cheikh Kama Ndiokel Ablaye Ndiaye Saraar Jaxaw final poussière ngay am foofu Cheikh Kama moo jiital tànku góos Cheikh Kama jël na ko Cheikh Kama jël na Ablaye Ndiaye jël na ko daan na ko placage waaw waaw Cheikh Kama daan na Ablaye Ndiaye Cheikh Kama Njokkel daan na Ablaye Ndiaye final poussière ndeysaan laa diri jon yenu na ko daw moom en gul waar kooku mooy Orient Guillacé Jamaken production ñoo woote fii ci Jaxaaw Sine le 2 février 2024 mise 3 bœuf ak 100 000 francs lii mooy final raw gadu bi diggante Defu Baari ak Kara bu Dingiliam Dingiliam nag à 1 kilomètre de Jaxaaw Sine la Kara moo ngemboo ngemb lu weex li Defu Baari ngemb ngembu bi Kara songu na ko Kara moo ñu woon ginnaaw Kara def bu baari su ma waxee baari nag sama xel day dem ci Kara daan na ko Kara daan na def bu baari oh. leen ndokkeel ngeen baalu tardement bi waaye nag suñu parcelle bi trop ndax gis nañ fi ci sax ndax lii c'est la première fois sax ñu def ndax euh, Abdou Hakim moo sa doon continué avec drapeau yooyu walaay ndeysaan waaye daa xamul nu muy def nii moo tax mu jël walaay ndeysaan ndax ñii dañu sonn moom bëgg ko moom tuñ mu mhm. waaye xan xat boo xam ne am na programme boo xam ne waaye da koo bàyyi lépp ñëw pour teew fekkee affaire daal doo mën a continuer ci waa. am ndeysaan daa am daa am itam yu koy tënk. moo tax mu jaar fi ne nii daal lu mu turee nit boo ma parce que ku la yëg dañ koy yëg. ndax nit dañ koy yëg ba dëkkam fekk ko si ay mbokkam nga nga wax ko la ko bëgg a wax. wallaay ndeysaan. loolu moo tax mu mu mu def déplacement bi. ak kilomètre donc kilomètre bàyyi ay bëri Dakar. ñëw fi nga war a demaat Touba fu jël suba amaat même. loolu moo tax ñëw teel. Mhm. waaye nag ñenn ñu ngi sant waa waa dëkk bépp. jaxaw gépp jaxaw gépp ñenn ñi sant di leen gërëm. Mhm. c'est la première fois nu mu ñëw li ñu wax nii dañu wax la. wér. ñu ngi doon ñu ngi doon dëgg. tey nag c'est la première fois mu doon lamb lamb lamb. Mhm. kon jaxaw nit ñi ko taxawoo. waaye nag mu gën a ko def ay yeneen yeneen yeneen mu gën a léppay sotti incha allah mu gën a mu gën a jëm kànga léppay sotti ndax parce que dina la jàpp soob yàlla dina mm. ko dimbal mu rëy incha allah mu rëy rek boo xam ne moom dëkk yëpp ay teew soob yàlla incha allah kontaan na nag kontaan na kontaan na kontaan na kontaan na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa jaxal jërë ngeen jëf tëkkat yi woykat yi li nga woon ñaaw toog ah. li nga woon ñaaw toog <laughs> ak yéen ak tëkkat yi xamante ni xëy na kàddu yu njëkk la waaye Abdou Hakim moom yow kat Basir wala Omar Omar nee na amul fayam nee na dëgg yàlla amul fayoo ak yéen ndax lii rek dafa neex nee na xeebalu ko bésul benn li ci bés bi yëpp def na ko kon am na mbégte lool ci Hakim nee na yàlla na ko Sëriñ Tuubaa fay amit moom mi am fay yàlla na ko fay. nee nañu may xay lañu. am ambition. mu ne toogal naa leen jàppale. mu dem ci kenn. loo bëgg maa ngi fi. loolu de seet na ko lool. ñii ay rakkam lañu. ñii ay magam lañu. ñii ay xaritam lañu. li ko gën a si moom day def te du wax nit ku baax a ngi nii yal na ko yàlla defal jàmm amit xeebul kenn ak Sëñ nee moom nag xolam fees na lool kontaan na yal na ko Sëriñ Tuubaa fay ci kàttanu Sëriñ waa jaxaaw nag amul seen pay Babacar a ngi taxaw moom xam na moom xam na. ne li ko gën a neex ci bés bi. ne du ni mu demee nii. ko sas. dana ci gën a góorgóorlu. li wax dana ko def. lu mu la wax rek da koy def. barke Sëñ Tuubaa. ku toog ak yow ne la waxal loo bëgg ma def ko. Modou Sène Mamadou Ndiaye. kooku kenn mënu koo fay. yàlla yàlla gërëm na dëkkandoo yi nee di gërëm dëkkandoo yi. dëgg yàlla kontaan nee na xolam seet na lool. fifty suma grand. nee fifty grand. fifty seena suma frère Mohamed. nee na Mohamed. ñëpp naa leen nee ñoom ñëpp bëgg na leen. nee di sant maam Cheikh. Ibrahima Fall yéen ñëpp mu di gërëm jàpp ngeen ci. waa HLM yëpp jàpp ngeen ci. am na yéene am ci waaye da nga ñëw ci dëkk boo xamante ne dëkk cosaan la. muy jaxaw siin. boo xamante ni dëkku culture la ndax incha allah xam nga law bee neex a jàngali pël wolof day ne naan du yokk mbar ci waaye am mu doy séeréer nag mooy wax yow waaye nag xam naa ne mën naa ci ñam tuuti ci wolof te dinaa la wax loo mën a dégg ndax li tax mooy nee naa la dëkk boo xam te ne culture la dëkku histoire la bés bi ci nga ñëw fii jaxaaw jàpp naa ne bés bi ko tey la njëkk a dëgg làmb ci paj fii nga taxaw nii place bii mu nekk taarix ci li ma la bëgg a xamal ndax dañ ma ne taalibe sëriñ Moustapha Bassirou wala sëñ Moustapha xalif général bi Mouride yàlla ko yàlla yàggal te wér waaye loolu di taarix ndax lu tax sëriñ Mountakha ibnu sëriñ Bassirou ñu xam ne digganteem ak sëriñ Touba dafa am. Angoy waaye diggante Serigne Touba ak Boussine Coumba Ndoffène bu Angoy 1903 fii la Boussine Coumba Ndoffène ci barab bii ngay gis muy musée bi ndax de mooy kër Linguère fii la Boussine Coumba Ndoffène jóge dem seere ji Serigne Touba en 1903 ci Ndar mu nekk barab boo xamante ne barab booy suwaat. sëriñ Touba bi taalibe sëriñ Mountakha bi ñu ngi lay jaajëfal di la sant waa Jaxaaw di kontaan si yow di la ñaanal saa su ne jàmm ak sutura boobu ba léegi dara amagul diggante monument Ndiana ak Biram Moussa Diagne di jaajëfal waa Jamaguène production Babacar Ning ak doomu ndeyam Ama borom HLM RPC mu ngi wax ak ñoom mbokki Sénégal lamb dafay dekkiwaat le 4 février ci arène national Gaston production ne damay indiwaat claf ci la ndaanaan yu mag yi jaaree woon yéen a koy fàttaliku mbokk yi ren jii nag Gaston production jël xale yi gën a ràññeeku ci seen génération du xam ngeen caatu yoof ndaanaan bi moom la jël daal di koy boole ak njaaytin gàmmugéey dina fa jàkkaarloo ak caatu yaraax mbokk yi Doudou Sané jàkkaarloo fa ak njaga doole booy jaxaaw dina fa jàkkaarloo ak garga waaye mbokk yi Gaston production ne du yem foofu bés boobu faaw ñu bootal ko grand combat bu am Zarko doomu Grand Yoff xale bi ñëw perturber lamb ji yëpp doon daanaan kullu fadilin la Gaston production jël daal di koy boole ak l'espoir de Guédiawaye ñaabu ndaw xale bi nga xamante ne jàmbaar la ndaanaan la champion la loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mën ko am en live pay per view ci seen affiche point com 8 virgule 99 euros dong nga mën a seetaan lamb ji en exclusivité ak ay image yu amatul fenn ciy Gaston production bu fekkee mukk fu lamb di jooyee